gamme de produit bi ñu tudd rapido extra moom dafay faj lépp lu ni men rawatina nag ñi xamante ni sax ñoo ci gën a bari te gën ci am problème mooy ñi xam te ne dañu am faiblesse sexuelle impuissance sexuelle ak éjaculation précoce te pommade bi dafay def. agrandissement de la taille du pénis da kay yok ci yatuway bi ci goudayam ci reyayam ak des bi manam koko utiliser pour 45 jours di nga 18 cm de longueur soko utiliser pour 2 mois di nga 21 cm de longueur et 6 cm de largeur en érection lépp luy jafe-jafe wala lépp luy gàllankoor bi xamante ne nit mi ngi koy am ci sexe am dafa doon def masturbation wala sexe bi dafa ndaw dafa jàdd dafa am gàllankoor dafa dëng wala du mën a normalement wala dafa mel ni lu plié wu loolu yëpp dañ koy faral di gis ci góor ñi te dañu am jafe-jafe boobu. képp ku ci bëgg ay information mën nga ñëw fii ci Guédiawaye arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall wala nga wooñu ci 77 169 45 45.